lundi 19 octobre 2020 fii ci Feeling Dakar ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ni moo gën a fës ci xibaar yi bokk na ci euh, Ndella Madior Diouf ak euh, confrontation bu mu doon def daal di ci def ay révélation yu euh, doy waar dinañ wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di Viviane coowam loolu ak Moguette dinañ wax ci Balla Gaye dinañ wax tamit ci li nga xamante ni moo di tiis bi nga xamante ni daal dina dal ci umma islamique bi yëpp rawatina communauté laayeen bi del déglu del xool Feeling Dakar mbokk yu leer internet yu ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar dal leen ak jàmm euh, xibaar yi nag dañ koy tàmbalee ak ki nga xamante ni moom moo di Ndella Madior Diouf moom nag Ndella Madior ginnaaw confrontation bu ñu génn rek dañ ko dalaloon euh, foofa ca 2 ak Bijou ngoone waaye nag gannaaw ba ko Bijou Ngoné daal di poser question ni que euh, moom lesbienne la moom nag Ndella Madior nag daf ko daal di euh, tontu tontu bu sincère ndax moom Ndella Madior daal di na koy euh, xamal rek ni que moom doyewul jigéen dara moom nag dafa nekk ko nga xamante ne nii dafa bëgg góor euh, ba tax na sax moom jamono yu muy marié doon sëkk ak jëkkëram chaque jour moom nag Ndella Madior loolu daal di xamle ba mu ca noppee sax am na benn direct ba nga xamante ni daal di woon na koy defaat moom Ndella Madior lu mu daal di xamlewaat rek moom moo di. Bijou Ngoné daf ko euh, posé question ba nga xamante ni nii euh, daf ko doon euh, tontu looloo waral mun na mu ko xamal ko rek ni que moom Ndella Madior dafa bëgg góor ba tax na sax moom Ndella Madior nee na boo bëggul góor da ngay daal di bëgg jigéen moom nag dafa bëgg góor moom Ndella Madior loolu daal di xamle ba tey ci li nga xamante ni moo ñeel Ndella Madior sax ki nga xamante ni moom moo di Mame Mactar Gueye nekk vice président bu ONG Jamra moom sax daal dina félicité ki nga xamante ni nii moom moo di ah, Ndella Madior Diouf ci li nga xamante ni moo di kaddu yu mu ah, yëkkati ah, ndax nag daal dina bannir li nga xamante ni nii moom moo di wàllum lesbienne bi nga xamante ni si am na ñoo xamante ni dañ koy dooleel moom ma Mame Mactar Gueye nag loolu la daal di xamle daal di félicité ki nga xamante ni moom moo di Ndella Madior Diouf ndax nag Mame Mactar Gueye mu ngi euh, dellu siwaat sax ci li nga xamante ne ni moom moo di euh, fan yu ñu génn xale yi jigéen ñi nga xamante ni ay adolescente lañu euh, ñi nga xamante ni am nañu quinze jàpp dix-sept ans nga xamante ni dañ daan jouer ay vidéo pornographique demaat di ko jaay benn ku ci vidéo bu nekk nag cinquante mille lañ ko doon jaayee ba nga xamante ne ni sax division spéciale de cybercriminalité daan leen teg loxo ni ki fan yu ñu génn génn makar Mactar Gueye nag loolu waral mu daal di kontaan ci kàddu yi nga xamante ni nii moom la Ndella Madior daal di yëkkati dañuy euh, daal di wax nag ci euh, nouvelle bu euh, tiis ba nga xamante ni daal dina dal ci umma islamique bi yëpp rawatina communauté laayeen bi ak génnub àdduna doomu xalif général des laayeen Baye Abdoulaye Thiaw Laye doomu bu góor nag moo daal di génn àdduna di Seydina Malick caw Laye moom moo daal di génn àdduna ni démb ci dimanche bi waaye nag ay waxtu lañ ci daal di teg rek taaw xalif général des Layènes euh, bu jigéen daal di euh, génn àdduna moom tamit euh, di maam ay seen cawlaay moom tamit daal dina génn àdduna ni ki démb waaye nag noppeeku ñu sax tey beneen doomu xalif bi daal di tamit génnaat àdduna ki nga xamante ni moom mu ngi nekkoon sax fi nga xamante ni moo di hôpital Dantec fa lañ ko hospitalisé woon muy soxna Xadi Cawlaay moom nag tey ci altine bi ba huit jotee la daal di uh, wuy ji uh, boromam foofu ca hôpital Dantec moom soxna Khady Diaw Laye mu nekk la nga xamante ne ni uh, dafa tiis lool ndax ñett ci euh, doomu xalif yi ñoom ñoo daal di euh, génn àdduna ci euh, deux jours bu nekk la xamante ne ni daal na métti lool waaye nag ndogalu suñu borom ba tax na équipe bu Feeling Dakar yëpp mu ngi jébbal njaalam ki nga xamante ne ni moom moo di xalif général des Layènes di Baye Abdoulaye Thiaw Laye ak li nga xamante ni moom moo di umma islamique bi yëpp ba tey sax dañuy desandi ak li nga xamante ni moom moo di dese yi daal di wax ci ki nga xamante ne ni moom moo di Ndeye Kassé ak Aline Kassé ñoom nag euh, dañoo daal di euh, ñàkk seen yaay moom euh, Aline Kassé ak Ndeye Kassé moom le ñoom ni ki démb ci dimanche bi foofu ca hôpital Fann la seen yaay boobule daal di génne àdduna mu nekk la nga xam te ni tamit daal na diis lool ci li nga xam te ni moom moo di artiste yooyu le waaye tamit nekk ci li nga xam te ni moom moo di Sénégal bi yëpp ndax ñëpp ñu ngi naka Dakar bi ak ñoom ñoom tamit équipe bu Feeling Dakar yëpp di leen euh, jaale seen yaay joojule dañuy euh, daal di wax nag euh, ci li nga xamante ni moom moo ji mariage yu boobu li nga xamante ne nii ni ki samedi la amoon mu nekk mariage royal bu nga xamante ne nii daal dina grandiose ba tax na mbàcco daal dina def mariage boo xamante ni daal macha allah daal dina sañse invité yi tamit daal nañu wuy si gis nañ fa ay actrice yu bëri ak ni nga xamante ni sax ñoom ñoo di ay mbokk fecc katam ku ci mel ni Umu Saw ak ay ay artistes yu nga xamante ni tamit ñu ngi fa woon ak ñeneen ñoo xamante ni ay jéggi ñaaleem la woon ñu ngi fa woon waaye nag gisuñu ci ki nga xamante ni moom moo di Ndeye Gueye contrairement ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di naataangoom yi. bu ñoo noppee ci loolu nag dañuy daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di euh, Balla Gaye 2 moom ma Balla euh, ñu ngi euh, gis benn vidéo ba nga xamante ni mu ngi circulé ci réseaux sociaux yi mu nekk Balla mu ngi joué li nga xam xamante ni moom moo di basket ak ki nga xamante ni moom moo di Ketchup Balla Gaye nag c'est première fois ñu gis ko muy def vidéo di joué basket mu mel ni ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye à part lamb ji basket moom mu nekk sport ndax à chaque fois rek euh, moom la nekk di euh, fowe ah, bu ñu noppee ci loolu nag dañuy daal di wax ci euh, coow li dof ci diggante euh, Mo Gates ak ki nga xamante ni moom moo di Viviane euh, temps yi nag coow li daal dina takkarnase ba nga xamante ni sax ay fans Viviane ñoom daal dina def vidéo di clash ki nga xamante ni moom moo di Mo Gates même ki nga xamante ni sax moom moo di Boucher Ketchup moom tamit daal dina clashale ki nga xamante ni moom moo di Mo Gates moomule mu mel ni jamono ji coow li dox seen diggante Euh, saful sax ki nga xamante ni moom moo dee Viviane ndax nag au moment bi nga xamante ni ni nit ñi ñu ngi nekk di si wax moom nag mu ngi amusé wu bu baax a baax ci nga xamante ni moom moo di euh, doomam boobule euh, di Zeyna ci lu ñeel Viviane daal Bass Thioung gannaaw ba nga xamante ni ni daal dina génne son bu mu duppee li nga xamante ni moo di feccal Vivi moom nag Bass Thioung moom le daan def vidéo sax li nga xamante ni moom moo di feccal Viviane Thank you. mbokk internet yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar